ay muzammilu ak mudassiru kenn ki moy Mouhamed Abdallah sek mom lañu tuddé tuddee. jërëjëf ma ca nga la bay yiri may samam wallahi deug la wallahi deug tafsir la fa jàpp Cheikh la fa wan bala ko mané mbay wallahi deug la. di sambay taw mo do tay um njaboot gi biram borom yàlla nee. ndeysaan. Eh Adja Layena lain. sekki jéera ma ca mbay saaxa yaa nga la mbaay. jërëjëf papa. wa amrawo min as-samaa xut bu rabaani saaxibul saqaay bi ñu ñëwee ci Cheikh na Cheikh Saad bu ni ko tey dañuy jaayante si maanaam man damay jébbalu si man ak sama soxna Cheikh na Cheikh Saad bu ne leen loolu nag jaayante la demal loo am nga indi ko Cheikh yi dem marché takk marchandise yi ñëw ci kër gi daal ji armoire yi lal yi takk yulli yëre yi takk jël lépp daal bàyyi fa benn bassan pour guddi gi moom soxna mu tëdd ñu indil ko Cheikh na Cheikh Saad bu Cheikh na Cheikh Saad bu xool ni ko dem na demal des na benn bassan boo fa bàyyi. Ah, waaw ah. Cheikh bu yaay booy kooku dafa doy war demal am na benn bassan boo fa bàyyi Cheikh Yérim ñëw takk bassan bi bale néeg bi yóbbu mbalit bi nii ma la wax nii ma la wax noonu la ma ko sama baay nettalee baayam sama baay baayam noonu la ko nettalee. Mm-hmm. indi indi ba muy dellu yëre soxnaam la sol kon amatul dara Cheikhna Cheikh Saad bu yëkkati mbubbam ni ko duggal mu dugg mu bokk ko ndànk ndànk bàyyi ko mu xam di durant émission bi di commencé léegi Cheikh Ilim a ngi tëdd xam jékki-jékki ximbali ko ni ko loo gis mu ne ko gis naa 313 géeju leer yoo xam ni dama koo jàll ci sa poqotaan bi étape par étape mu ne ko am amruhu min as-samaa'i qutbu rabbaani saaxibu saxaa'i وابسد له خزائن الأموال في جملة الأيام والليالي أي يا شيخ يا يريم أنت رجال من رجال الله تعالى الكريم ذو الجلال خمغا شيخنا شيخ سعد وبه لما يوخنان دالاي فك غدون ويو مو تل غدون وليو ويبو عدو من أبعدته من مقرب وذو النأي إن قربت فمقرب دفا جامو يالا موم شيخنا شيخ سعد بو با يالا جوخ كون بقلبي سر الكون والأمر مختف وأمري أمر الله مذ كان أمري ونومي حوض الغيب إن كنت نائما وجل جلال الغيب عن حال نومي ولست لدى الأكوان رائي حقيقة وإن غصت في مولا تراني فانيا فانية باي طالب بويا يلا كوم يكون à l'âge de 7 ans à l'âge de 7 ans lu mu wax yàlla à l'âge de 7 ans moom Cheikh na Cheikh Sadbou lu wax yàlla def à l'âge de 7 ans day xalaat sax yàlla di def parce que néna la une étoile scintillante suintée au firmament du 19e siècle c'est ce bonheur ce grand figure islamique ce grand guide spirituel cheikh na cheikh saadu abihi mu cheikhal cheikh rim nak niko amruhu min as-samaa'i sey mbir mi ngi jóge ci asaman qutbu rabbani sahibu saqay te quelque qui est rattaché à Dieu do jóge ci yàlla lolou qutbu rabbaan qutbu rabbaan mooy ku dul jub ca yàlla mun nga doon tudd bu rek mais rabbaani mooy ki nga xamante ni yàllaa koy bëgg di ko yaral boppam moom garaat googu la takkal Cheikh Xadim Ndumaan ci koo xam ne musoo koo gis moo tax Cheikh na Cheikh Saad bu ay mayam day sëmbërtalu di wàcc du dagg saa boo ñëwee présenté mu ci kanamam bëgg na la seexal dina la seexal takkal la garaat goo xamante ni du wàññi ci ay mayam te looloo gën a jafe mm-hmm. xam nga lu gën a yomb maye dix mm-hmm. waaye maye maye leer moo gën a jafe ak jafe ci waaw dafa jafe ci góor yàlla góor yàlla pour mu maye leer faw nga am zuhdun wa shiddatal waqaar wa hibata zulli kaza wal inkisaar maa tawbatin inabatin wa xasiyati kathiru sumtin daiman fi lfikrati da ngay doon saaxibu nusxin rahmatun lilmuminin zu gilzatin wa shiddatin lilkafirin samhun samuhun muxbitun wa diinu zu xumratin wa xabratin wa siinu wa dabuhu qiyaamu wa siyaamu tadarruan iz yahjaun nuwaamu qualité yi ngay ngay accomplir pour mën a doon góor yàlla d'abord pour nga sax di mën a seexal léegi nag seex na seex saat bu qualité yooyu en abondance la ko am day tëdd di nelaw yàlla di ko xamal wa isal inayatu la xasat ko haani fal maxaawifu kulluhunna amaanu moo tax ku mu bëgg a defal garaat bu mu la bëgg a takkal takkal la grand question bu pertinent bu am solo nga wax. téeméeri fas ku ci raw jàmbar nga. dëgg la. Mm-hmm. loolu la yàlla defal Cheikh na Cheikh Saad Bou. Mm-hmm. maanaam nag débat bi dama koy centré ci benn phrase rek. Mm-hmm. yàlla mooy def lu ko neex. loolu bu ñu ko xamee rek papa mu mat Cheikh na Cheikh Saad Bou. quatre-vingt-dix-neuf yi ci des yëpp ay waliw lan. walil bani addu najjin yaati zamm ilal xayraati bil banaati. cinquante-trois. domi gor 47 domi yu 53 plus 47 muy 100 doom yalla teul ci Cheikh na Cheikh Saad Bou li mu teel à l'âge de 4 ans mhm. à l'âge de 7 ans yi muy wax di def yo xamni nitu ordinaire du ko def mom Cheikh na Cheikh Saad Bou di ko def mhm. mu dem ba am 10 ans yalla dajale may tek ko ci loxo bi matlawul garbi way saadu مزلاح سعد أبي سعد خير ينما إلا كل سعد ذاخر اليمن L'océan mystique sans rivage, l'abreuvoir de toute choisie, c'est Cheikh le Cheikh Sadou. أنت سعد سعودي سيرنا سيخ سعد الأبي أم المرو أسأله بسينه سعادة وعينه علوم والعبادة وداله دنو ودين قويم ثم ببائه بهاء وبالرعد فادلك ما taalib alxayaar bàyyi seex taalib yëpp ko koy seex saadul abi wa bil waawi wusula wal widaat suma biha ihi hidayatan ila rashad saadul abi saadu ma taxallaqa rabbi qina min annawaqi sitta بستة الحروف فهي همدة سادلا بساد ما تغلقا ربي بها فهب لنا النرامة شيخ طول الوشيرة إيه سادلا بساد ما تغلقا مراتع ذكر الله مرا ومسرح لأرواحنا والحق على وأوضح دوم شم مرفاد الساد الأبساد ما تغلقا فلنرشح بالأذكار شوقا لربنا وكل إنان بالذي فيه وخبوا بزيد تقققا خلا خموني إن في خلق السماوات samawati wal ard fii sittati ayaamin suma stawa ala al arshi saadul abi dawoo xayrul wara xanaa xamoon ne yàlla ci diggante asamaan ak suuf mi ngi ko sàkk ci juróom benn fan ay wa damma wo min damihi bilan tira asamaan ak suuf yàlla mi ngi ko sàkk ci juróom benn fan سعد الأبي سعد أمة نبي سعد أبي سعد من تعلق سعد الأبي سعد من تغلق أنا نبغي شيخنا شيخ سعد ويكتي لنا سلام أيكو سوبو سنة شيخ سعد الأبي كركتي نم سعدين لو سعد الأبي سعد من تغلق سعد أبي سعد من تعلق سعد الأبي سعد من تغلق جرم بن فن يوي يلا رفعت له جرم بن ترسل شيخ سعد سعد الأبي سعد من تغلق بوني سعد بوه جرم بن ترلا saadu abi saadu man taqallaqa saadi buhu juróom benn lettre yooyu moom la yàlla rafaatale juróom benn fan yi mu tëkkee asamaan ak suuf ah, saadu abi saadu man taqallaqa cheikh turan ni asaluhu bi sinihi saada wa aynihi dunu wa dina diwa suma biha hidayatan ila rashad rabbi sittatul quruf fa hiya humda rabbi biha fa hab lana marana ma wasali ala nabi salama saadu abi saadu man taqallaqa moo tax cheikh na cheikh saad bu mooy sansu ku ko topp saadul abi saadu man taxallaqa wa xubbuhu bi zayyihi taxaqaqa wa xubbuhu bi zayyihi taxaqaqa saadu abi saadul abi jadduhu jadduhu xayrul wara xayrul wara maama may saydina wa dammuhu dara ji daw ci yonent bi dammihi mooy daw ci Cheikh la Cheikh Sall nuuru nubuwwatu alayna la yazul tawarsalahu fukulun an fuxul mata nabi moo tax mu ni kenn du ma xam wa saadu man axaba duna riyabi je suis un mystère engourdi dans un mystère

تقاصر بين الامر أيوة. أنت مستطاع يرد زادني بسيعك كن قديم من أبند بكم تمدم تمن مقام يا أهشي بارك لنا أرضنا ببعان عجل فهب لنا نعمة تولى من النعم لأننا غيب غيب في غيب كالقدر شيخنا الشيخ سعد بنينا كومبا غنيو دخن تبير كومبا لا ما داو ولا يرى أنا إلا خالق البشر إلا خالق البشر كوماي لين كسلا dafa bëgg yonent lii ma la wax yëpp mu dal góor ga ca saalixiin lenn rek ko ko may mooy li nga wax li nga ma laaj muy bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad xanaa xamoon sànq dama jug rek papa ni la gaa yaa ngi rawantee ci bëgg yonent bi bëgg Seydina Muhammad weesuwul yaay nga ni yaa laytanii kuntu turaaba naalihi wa laytahu akramanii bi waslihi yàlla yonent bi dafa ne woon man taraafa'a wadaahu llah wa man tawaadaa rafaahu llah képp ku wàcc sa bopp yàlla yëkkati la te képp ku yàlla yëkkati nga sut ñëpp cheikh na cheikh sad bu cheikh na cheikh sad bu wàcce boppam ba maaseeg suuf yàlla ci nii kurtu turaaban alayhi aka neexoon ma doon pépp suuf bi nga xam ne mooy takk ci sama maam rasulillah walaytahu akramani bi waslihi na cheikh sad bu bay cheikh taalibu من فوق سعد السماء ظل السهم مرتفعا فعجبا بسعد السماء فوق السماء السماء نيو على ام غلي خم نغا كن مو يوم الخيار دنجو لاج شيخنا شيخ صاد من الى يو دي ميراكل انورم كي دوبي لونتان اون راندو ا بو دي فور بور لي كانتيتي لي لانغ دي بويت لو بلوز الكون نيو كو شيخنا شيخ صاد بو بيندل من له ايات عظام طالما عجزت عن حصرها لسون الشعار والمدد لك بايو شيخ طالب ويو يا دي دوني سيدنا محمد شيخنا شيخ سادبوني Regarde le soleil lorsqu'on le ramena sur sa trajectoire à sa demande. Quant à la lune, on l'a fendue et les arbres se prosternent pour lui. Cheikh Cheikh Sadbou Baye Cheikh Talibu Nena. Fendue et la chamchi. il a tous les attributs de la perfection et il a le plus haut rang dans le secret tout secret طالما عجزت عن حصرها لسن الشعار فانظر إلى الشمس إذ ردت لدعوته والبدر الشقة والأشجار والغصة أي شرطة لبيننا بيننا doon soppi deew bu tim samaan góor yàlla yow julli ñaan ngir doon way dinu bismil ilaahi maa ngi way Seex Saadu mi boroomi may yàlla ko bul bi yàlla fay ci barke saari alxuraan dëglul ma wax la ak ñëwam ku mel ni moom dootu fi am ci weer wi la nu bindoon turam wàllu yëpp di ko ñaan Muhammad faadalay baayam soxna ma di yaa maay yaayam rasuulullaay moo di maamam sëriñ si mooy seen ilimaan fukki at rek jala ma génn xaw du ci digal jëm sowu tant ngir toxal bokkaale yàlla ak jaaxaan innahu huwa samiul basir góor googu Cheikh Saad la bi mooy ba Cheikh Talib bu noonam ba Sidi Buur la woon bilaay dëgg la ba mu defee Cheikh Saad bu noon ngir bon gu metti ak kañaan bilaay la dagam yu bon yi di ko jay bilaay dëgg te nan ko yaa fi nekk tey xërëmkat bi daa bari ay génne ko kii bu bi fanaan bilaay dëgg la Sidi ko Saad bu demal xoolal keroog ba muy gisee Sidi buuru Trarza moom Cheikh na Cheikh Saad bu dëkkul gànnaar bàyyam da koo seexal à l'âge de 14 ans نكو أجعلها على رأسك بين الأنام على كبد من أحب ومن كره من الأقوام أما ما بيغا خمني شيخ أياب مباخ ميد دوم شيخ طالب يوم مم لدون كمامام سيدنا محمد تغل كو باتن نكو يو شيخنا شيخ سابو من سمام شيخ النالا نغي سرنو مك أك كو ناو دي سرنو كو ويخ أك كو ري أك توت أجعلها على رأسك بين الأنام على كبد من أحب ومن كره من الأقوام mu xëy di nettali gént gi bàyyam cheikh na mohammed Badil bàyyam ni ko yow cheikh na cheikh sat bu dangay génn wala ma génn mu ne ko bàyyi xaw ma kenn xaw ma fenn yaa ma jur yaa ma yar yaa ma jàngal kon bu ma génnee fu ma jëm mu ne ko demal foo dem woote ni man may cheikh na cheikh sat bu doomu cheikh na mohammed Badil dinañ la teral moom cheikh na cheikh sat bu juga xawdu ancien ancien Soudan actuel Mali di dox di dox di dox ànd ak Mouhamed Lamine wala Insa ñu togg ñaari fas di dem baayam joxoñ ko moom Cheikh na Cheikh Saad bu du dox ba dugg gànnaar fekk fa buur Trarza sii di muy wax mii muy wax شيخنا شيخ صادبو ني مان ماي شيخنا شيخ صادبو دومو شان محمد بادل ني نكو خامو ني لا خامو ني صباي مو يكي بون مو يا ربي اني كنت في ظل فضلك في يد ابي مستانسا به قلبي واليوم اصبحت عن وطني طردا وفي اطراف بلادي ويحكا والان ليس لي غيرك ولا خير الا خيرك فلا ابرق من مقام هذا حتى تولاني ولايه تشمل بالخير كل من ولاني وبالغير كل من علاني ñi nangu cheikh na cheikh Saad bu cheikhal leen ah, defar leen ñi bañ cheikh na cheikh Saad bu zabbi leen ba ci siidi mii buuru Taraza moom ñi mu jur ñëpp a bon ba ilaa yomi diin dañuy bon parce que nangulul cheikh na cheikh Saad bu te ku nangulul cheikh na cheikh Saad bu nanguloo Seydina Muhammad te ku nangulul Seydina Muhammad yàlla di nangu إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عزا بالله يننت بيقن أي دوم بيقن أي ستم نيقن بإلا يوم الدين yow mu diin moo tax sat bi da jërëjëf jëfe Cheikh Saad Boy Cheikh Saadul Habib waaw sant ko nag papa day war sax na Cheikh Saadul Habib amul moroom déedéet gisuma ci moroomam fii ci àddina xam nga lu tax papa mooy li ma la wax léegi bëggam gi mu bëgg Seydina Muhammad te yàlla bëggul ku dul yonent bi moom laa gisul ku bëggee noonu Seydina Muhammad dama la wax ñaar dama ne ku wàcc boppam yàlla tëll seen Cheikh Saad bu wàcc boppam ba maaseeg suuf muy première deuxième bi mu nu yàlla te ni kuntu darix li jussati nabi sabih kay yabra a qalbal jarih bil xuzni min huwal kamal gis nga lii mu bind yëpp jàngul fenn <laughs> moo waxaat la loolu génnul ci benn daara quatre ans la am sànni aliwu quatre ans mu dal arrahman yàlla allama alquran moo mën a jàngale alquran mu ne ko sëriñ bi loo fi def man lu may def ci yow يلا من جانجلا يعني الرحمن يلا علم القرآن مو من جانجلا القرآن من شيخنا شيخ صاد بودم ناكا يلا ودم جت دينا لورك ونومي حوض الغيب إن كنت نائما وجل جلال الغيب عن حال نومي يا علاش ده ستان شيخنا شيخ صاد بودم لو يلا ديكو خمل موي تدينا لو يلا ديكو سول موي تدينا لو يلا ديكو بروتيجي موم شيخنا شيخ صاد بودم حضرة القدس بربو غور يلا يكوي موم شيخنا شيخ صاد بو فيتسام

لم تبق مني شعرة إلا وتذكر الله تعالى باسم من أسماء خاصا بها وشاهدت تصبيح سائر الأكوان باي شيخ قلبي نينا جامونا يالا با أمول كراو بصح تي سما يارم لودول ياغي تودي يالا واخنا دغ سخنا كيوي بريمير كيسيون بي موي شيخنا شيخ سعد بو جين نينكو سور سولري باسكو لي ما واخ موم دافا دون سيدنا محمد تي لي مو سيدنا محمد غيناو نديرل جي moy la mission prophétique yonent dotul am ginnaw sayyidina Muhammad la nabiya baada Muhammad ginnaw sayyidina Muhammad benen yonent dotul feñ moy al awwal wal akhir mo ñeuk tax yonent yi am waye mo muju kaste sen lim khayru nabi man faqat nubuwatuhu nubuwatu rusli min urbin wa min ajamin yonent yi ci arab yi yonent bee leen gën yonent yi ci عجمي نيدول عرب لي نو زرب سيدنا محمد لين كن كون گيناو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوننت دوتو فين ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وكان الله على كل شيء وكان الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين غناو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موتك خاتم النبوه موم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم léegi nag li mu daan def ci ay mu'jiza yàlla da koo may cheikh na cheikh Saad Bou mu koy def ci kéemtaan wax na ko sànq iza asqata fi bahrin amiqin jara ala wajhihi kal farasil atiq moom cheikh na cheikh Saad Bou buy dox ci géej day mel ni fasu naaru góor buy dox ci tali xam nga kooku ñun bu ñuy dem nii jaar dañuy xaar bag waaye moom du ko ca fekk ni mu doxee ba ci suuf si ba ñëw ci bag bi noonu lay doxee jéggi moom ak taalibe mi du moom dongoy dox de du moom doo ngoy dox de jur yi mu yi mu yi mu yor ñu jox ko addiyee lay njëkk a ñu traversé géej gi jaam yi jigéen ñi ñu traversé jaam yi góor yi traversé doom yi traversé mu traversé isa asqata fi bahrin amiqin jara fa ala wajhihi kar farasil atiqi wa ida axada uudan yaabisan ahdara fii yadii naisan bu jàppoon table bi mu doonat arbre d'origine bu jàppee bala taxaw mu doonaat garab وإذا أخذ بلعة رجل مما يأكل عشاء بها نحو المئة من الظماء بجل بين دانك تكسي بلا تيمير نلاك بمدس بجل بين كاس أتا دفت ندخ تيمير يوي دنيا نان باي جاب لغن ماني لولو معجزة لا بحنا مونكو pour ñu la pour ñu du lu mu bëgg liko gënal mom cheikh na cheikh sadio bi xam nga lan la ala inna ma qalbi bihi shawqu wal hubbu alamat bihi amraadu laysa laha tibbu fala hiya min layla wala hiya min daadu bal hiya min rabbi fa ya habaza rabbu kéemtaan gi gën a màgg ci cheikh na cheikh saadu abihi mooy bëgg gi mu bëgg yàlla ak jaamu gi mu mën a jaamu yàlla sànq nee naa day jaamu yàlla ba amul karaw bu sax ci yaramam lu dul yaa ngi tudd yàlla amul karaw bu sax ci yaramam lu dul yaa ngi tudd yàlla nga jaamu yalla nak fi la yam mhm. tax yalla may ko mom cheikh na cheikh saad mu meuna def lu ne lu xel dajul cheikh na cheikh saad boobu nakoy def mo gene fax fax moo ko génne mhm. comme li nga la ci Serigne Touba ni dafa réer ñent at ken xamul fu mu ne ken xamul fu Serigne Touba ne ñaari nar ñew ni ko yow cheikh na cheikh saad bala ñu lay gëm da ngay def ñaar ñu ni ko yan ñaar benn bi da ngay attaaya tuddoo jël war gar suukar mu len lolu yomuna laaj Bachir ibnul Mbaari gi baraada ak kaas mu jox ko baraada kaas mu defal ko ci baraada bi ndox mu teg ko ci poojam baraada bi jékki-jékki si kar mu xel jox leen naar yi xoolante ni kii njabarkat la mooy li nga doon wax sànq ñu keneen ki